Peut-être euh, pour terminer qu'est-ce qu'il faudrait faire quels actes est-ce qu'il faudrait poser pour que euh, euh, jàmm ak dal gi nga xam ne moom lañ xam ne Sénégal mu daal di wéy. Je crois que première acte bi mooy ñu libérer les les prisonniers politiques. Mm les connus comme les moins connus. que la traque là waxuma nag criminels yi nañ leen traquer. Mm-hmm. man waxuma ñi nga xam ne dañuy ñëw infiltrer di def naka sadul noonu parce que kenn d'accordul ñuy dajji. ay kër wala ay boutique wala ay affaire mais ku nekk sa mer peut-être ni nga koy exprimer mhm. mais criminels yi nga xam ne ñoo infiltré mhm. d'accord mhm. su fekkee ne vraiment c'est avéré nañ leen topp loolu mais nañu bàyyi traque bi manifestants yi jeunes yi nga xam ne dañu doon na ñu bàyyi traque bi nañu libérer détenus politiques yi et surtout surtout surtout surtout li gën a mën a indi jàmm mooy nañu président Macky Sall wax na léegi il est pas candidat en 2024. parce que nous on considère qu'il n'est pas candidat. na teg bal bi ci suuf ko yàlla may na ko loo xam ne peut-être il fait partie des rares personne ci ñu ngi ko may. Mm-hmm. na dem bi rafet na dem bi rafet. Mm-hmm. parce que plus muy persister ci benn côté xelam wala ñi ko wër di ko gëm loo ne mën na nekk candidat waaye non constitution bi pourtant lii arlee arlee deret mooy mooy gën a amati Sénégal. Mm-hmm. te deret boobu il sera tenu comme responsable. donc na teg bal bi ci suuf na génn dès à présent xamal ne. il n'est pas candidat mhm. ñu teg ko ci suuf maintenant tout ce que la justice après doit faire l'essentiel que bu bañ ñu bañ ko instrumentaliser mhm. na ko def ñun on est d'accord ci loolu mais jamono ji na libérer otage yi na ñu arrêter traque yi Euh, suñu démocratie bi ñu nekk di dëggate di ko piétiner ñuy nekk la risée de du monde un peu partout ci yenn chaînes yi dafa doy quoi. Mhm. et na wax tel na wax dès maintenant. Mhm. ne il ne sera pas candidat parce que on sait que tout ça. Mhm. c' pour préparer loolu. et que xam ne askanu Sénégal ndawu Sénégal duñ ko ko may. ñu wax ci benn sortie bu Éric Zemmour def pour pour terminer est ce que vous accordez crédit ci parole Éric Zemmour yooyu comme quoi que. honnêtement j' accorde aucun crédit à ce que ce ce dit. je crois que c' encore de la manipulation. pour euh, essayer de prouver vous voyez les Africains nanani et cetera. ñooñu nañ ma baal ci terme bi ay fenkat la ñu mës a doon tu vois ay ñu mës a doon c'est pas aujourd'hui la ñuy jéem a wane benn benn témoigner benn solidarité di jéem a ne wooyee Macron moo def lii ñun gëmuñu loolu mhm. man je ne crois pas à cette personne très bàyyi la nga tàggaloo di fàttali dañ la fi dalaloon pour waxtaanee li jëm ci wàllu engagement aux citoyens ak artistes yi ban posture wala ban mhm. taxawaay la ñu war a am ak euh, askan wi euh, très rapidement di la remercier encore ci dalal bi di jéggalu su fekkee ne wax naa fi kàddu gu ñaaw nañu jàpp ne sama ñàkk matta di la et di wax ndaw ñi encore une fois on est vraiment fiers d'eux pas de ceux qui cassent mais ceux qui manifestent et di xam lu tax ñuy manifester. Mhm. xam ne démocratie seen démocratie réew dafa am solo. Ah et surtout fier de ma communauté hip-hop parce que gis naa seen taxawaay. Mhm. de la plus petite à la plus à l'ancienne génération gis nañ seen taxawaay et c'est ça le vrai hip-hop c'est ça l'essence du hip-hop c'est ça le hip-hop bi nga xam ne ñun on s'identifie à sa et yi nga xam ne askan bi dañ ciy gis njëriñ. ñuy doxee ñaari tànk c'est vrai que mën nañ di bling mais mën nañ tamit bu askan wi soxlaa ñu nekk fi et loolu la ñu mës a xamee hip hop Sénégal. Mm-hmm. di remercier encore une fois la. communauté hip hop du merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal yow itam ci sa disponibilité di remercier ñi ñu doon seetaan di euh, euh, euh, jaale nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci manifestation yi ñu toll ci fukk ak ñetti doomu aadama donc ñu espérer que justice sera faite et que képp koo xam ne def nga naka sudul noonu ci manifestation yooyu yoon dina la teg loxo di leen jox rendez-vous vendredi prochain incha allah restez en compagnie de programmes de la 2STV tout de suite la grande édition en français avec Cheikh